04 05 ak 88 65 65 di gërëm bu baax euh, waa Keifa ci euh, yi nga xamee ni euh, ñoo ngi ma koy solal depuis plus de quatre ans on vous montre image yi xam naa bu ca kanamee ci ndimbalu Pape Samba am mi ci ginnaaw période bi nekkuñu ci période duk dem peut-être di dajaloo ci ay fu ñuy confectionner ay yëre mais mën ngeen a dem ci site internet bu Keifa di www.keifawood.com donc regardez c'est ça donc Kiba costume africain style et classique Euh, euh, voilà c'est une marque qui a inspiré presque tous les créateurs du Sénégal à faire des kibas euh, voilà costume africain yi biñ ciy dox boobu defe naa amul tailleur bu ciy dox ñu ngi woon ci jamonoy Obasanjo mu ñëw sa chamboulé lépp def yi et c'est bien un créateur ñu ngi koy félicité yaayam di ku baax nag voilà moom sax bëgguma mais yaayam moo ma bëgg moom bàcc <laughs> yaayam daf ma bëgg bu koor gi desee ñaari weer da koy woo ne ko maa yéene nga pare yére Pape Cheikh Diallo yi voilà donc euh, merci bi sax dama koo tollanti euh, parce que ci prêt à porter la ñuy nekk période bi euh, donc mën ngeen commander ci seen site internet en attendant yeneen partenaire parce que ren ñaari partenaire la am kati création itam mu ngi wàcc ay turki njaaree mag yu baax yoo xamee ni fii léegi jeudi incha allah dinañ ci ànd ak moom ñu jël téléspectateur bu nekk ci téléphone bi allo kooku. Euh, man la Mamy Diallo. bàyyil baat bi ngay neexal maa ngeeg baatam neex. allo. waaw kooku kan la. man la Mamy Diallo. waaw ma ni bàyyil baat bi ngay neexal mami. non neexaluma ko xam nga ñun Diallo Diallo rek mooy loolu. waaw dañoo mun a dañoo mën a wane wu de. voilà yaa ma gën a xam. man damaa toilette di wane sama grand bu bu gàtt bi sànq ba tey dàll yi sax damay fay xale yi pour ñu ma koy filmer ak montre bi. rafet na trop. dañoo <laughs> mën a wane gis nga sama bouton yi sax damaa bëgg mu feeñ. Mm, rafet na <laughs> ko defaree livré ma ko ak suma xarit bi waaye fàtte naa bi waaye yàlla baax daal ci suñu suñu ay affaire la rek na def <laughs> dañoo mën a wane wut de alors euh, fan ngay wootee mami. naa ngi wootee Daaru. yaa ngi wootee. Daaru. Daaru ah Daaru ban Daaru. Daaru Xuddoos. Daaru Xuddoos bu Touba wala bu Mboro. bu Mboro. waa léegi man damaa bëgg dama bëgg a xam benn affaire. Mm-hmm. yéen waa Mboro yi nu ngeen def ba am saa su guddi gu jot am ñaar ba ñett ñu wootee Mboro Daaru Xuddoos googu dugg ñu jox ko ñaar fukki junni. bëri wërsëg rek. Ah, <laughs> loo bëgg ma dimbalee la euh, euh, dund wala ma jox la xaalis bi. xaalis rek. xaalis bee la gënal. waaw si Pape Cissé am naa kon dund bi dañ ko ci yokk rek euh, ku ñu jox ñaar fukk rek jox ko dund donc cent mille bi yaa ngi koy gis. waaw maa ngi gis kay. sa xel dal na. dal na torop xam nga ni yaako moom. Mm. noo koy jëfandikoo mbaa di nga jox sa yaay. sama yaay waaw naa ko ci may kay. di ko ci may. naa ko ci may kay. après li ci des loo ciy def. Mm, li ci des dam koy def sama bopp rek. très bien <laughs> d'accord donc quartier général may na la euh, may na la cent mille may na la cent mille euh, yaa ko moom jërëjëf ne quitte pas comme saa ñu jël sa lépp mën la ko yónnee nu mu gënee gaaw bu amee beneen téléspectateur bu nekk ci téléphone bi ñu jël ko euh, rapidement allo. maaleykum salaam. kookaan la. man la Ndeye Khady Ngom. Ndeye Khady Ngom na def. ngoom ngoom fan ngay wootee Ndeye Khady. yaa ngi wootee. Pout laay deuxième appel venant de Pout tey tey tamit di kontaan ci yéen bu baax baax. jërë jërëjëf jërëjëf Ngom jërëjëf Ngom kontaan nañu naka waa Pout. waa Pout ñu fi. ah. waa Pout ñu fi kay ñu ci jàmm bu baax baax. aywa ci la xoolal dama leen bëgg Pape am na naa trop waa ji rafet na trop. Pape Hann da nga bëgg ma paas la ko. Pape Hann le les les cinq minutes de Pape Hann xaaral paas la Pape jërëjëf jërëjëf jërëjëf yal na yàlla fay la. wallaay kontaan yal na yàlla barkeel leen yéen ñëpp ci daraja yi Seydina Mouhamed kontaan nañu. amiin jërëjëf. a alaaj Pape ah Pa alaaj mayal ma ko lu am solo waay. ah kon may naa ko may naa ko cent mille. waaw naa ko ci euh, euh, dund bu def euh, pañe bu def tàndarma suukar ceeb soble pombiteer saabu gel ak masque. néew néew ma ko Ousseyn waay kontaan ci les cinq minutes de Pape Hann fan si club Pape Hann bi. oustaz Pape Hann ne ko yow yaa moom jërëjëf merci. ci woote bi ñu ngi lay gërëm bu. Euh, euh, baax euh, donc mën nañu tàmbali waxtaan bi Oustaz nag El tëgg tama ak okkatu moo gën a metti ah boo ko bëggee boolee de mbay naam bu tardé <laughs> pour rek mu leer mbay fa metti donc euh, oui na beneen téléspectateur dugg euh, je je je ma joxewaat waat ma joxe d'accord super léegi kon ñu dem <laughs> <laughs> ñu dem ci euh, euh, tàmbali gi ci euh, guddi gi ak ki nga xamante ni mooy Cheikh Mara Abbas Cheikh Mara kontaan nañu Cheikh bi ci teewaay bi ñu bàyyi la nga ibbi ak li nga ñuy bégalee tey ci guddi gi ci karti général bi tey ñu fas yéene waxtaanee ku tedd ki. Mm. di Serigne Abbas Sall. aleykum salaam wa rahmatullah. di leen baal xaq di leen baal di ñaan yàlla mi am jàmm salaam sutura ak barke yàlla na yàlla defal nu ko bi jaahi mawlaana rasulillah barke Seex Seydi Ahmad Tijaani ñaan yàlla feebar bii rëmbes réew mi yàlla na ko yàlla saafara amiin dara ji yonent bi sallallahu alayhi wa mm. macha allah nuyu waa palaato bi yëpp macha allah alaaji Pape Cheikh waaw ñu ziyaara la bu baax yow suñu famille lañ lay bëggee wallaay laa bëgg te yàlla tax. wallaay yal na yàlla jàppale la. allahumma amiin allahumma amiin liggéey rafet na. allahumma amiin macha allahu taala. jërëjëf suñu mag suñu papa macha allahu alaaji garmi hmm. di suñu soppe lool ñu bëgg ko te yàlla tax. moom it ñu ziar ko macha allahu taala. jërëjëf soxna mami. Hmm. suñu soppe. ñu ngi lay ziyaara bu baax a baax. maa ngi lay nuyu. ak ñi ngeen toogal ñëpp macha allah. nuyu sunu mag sunu xarit alaaji Pape Makumba mm-hmm. nga xam ne ñi la ci géew bi yëpp ko bëgg. ngir jëm eh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. xolam moo rafet. ba pare mm-hmm. waxam dafa rafet. macha allah yal na la yàlla jàppale. Mm-hmm. sunu xarit nga sunu soppe nga. foo dem rek sagal waa Thiès. macha allah nuyu nag sunu kilifa sunu mag ñu ànd ak moom. Mm-hmm. Moussa Ahmed Fall Dieye. Mm-hmm. di bu bàyyi Moussa Dieye ñu koy ñaanal yal na yàlla ci làmminam tey moo war a waxtaan ci góor yàlla bu mag boobu di Cheikhna na Sall At-Tijani yi. Mm-hmm. macha allah ak suñu rakk El Hadj Arona bu ko defee bàyyi Cheikh ñu ubbi rek. tàmbali incha allah tey moom dina yéeme. quartier général lañ daan wax mais région générale mooy am tey. yàlla na ko yàlla moo tëddee. ayca dara jundi sallallahu alayhi wa sallam. يا ربنا باسم العين الذاتي ونور ما لها من الصفات يا ربنا بسر عين الذات ونور ما لها من الصفات كبق انت يا محمد عين الوجود اصل كل جودي محمد صفيك المحمود الفادي الخاتم والهادي إلى صراطك الناصر يا رب العلا سيري عباس نينا كوكو بغ انت يالا محمد أول من لباني داك وعبد من حيث إلا الواحد فرد الصمد أدعوك جاعلا وسيلتي إلى عظيم ما عندك من فضل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جاه وليك ممد الخلق أحمد كل حامد للحق يننت بخلعة نور ذاتك المطلسم وعينه وسره المكتم رحمتك المهداة للأكوان من بار فضل الواهب المنان كند انت محمد صلى الله عليه وسلم خير وسيلتي وخير عدتي وخير ملجئي وخير عمدتي سيد كل علي التجاني رضي الله تعالى عنه وارضاه سيدي احمد التجاني Cheikh Seydi Ahmed Tidiane ana taalibe Cheikh ni ñëpp ni nii ñu màggal borom tariqa bi radiyallahu ta'ala anhu Sëriñ Abbas nee na sayyidu kulli awliya Tijaani manba'u sirril ilmi wal irfaani أحمد عيد حضرة الإيمان وحضرة الإسلام والإحسان عين التقى والجود الجود عين الرحمة عين العناية وعين المنة عين المضايا والمكارم العلا عين السعادة وينبوع الإله عين الوصول عين حق المعرفة عين اليقين waa kër yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alaaji fam an sawaaja aynul wusul way loxo ñu màggal yonent bi aynu haqqil maarifa aynul yaqiini haqqu aynu sifa wa aynul asmaai wa aynu zaati wa sirruha almaknuun fi zawaati akramu aabidin wa asnaa saajidi lillahi rabbina alkarim almajidi an tulhimani shukra ma awlayta wa ma wahabtali wa ma asdayta sëriñ Abbas ne lima alim wa lima lam a'lami min minani la fusiya wa ni'am وتغفر الذنوب عمدا أو خطأ وتكشف الحجاب عني والختان ku bëgg ziyaare ji Seydina Muhammad defal nii hatta ushaahida jalaal al-Xaaliq fi kulli maxluqin min al-maxaaliqi hatta uraa'iya xuquuq al-baari fi xalqihi wa maa lahum min jaari hatta إلهي فسرت من بقية الأخيار عبدا لرب خالق قهار من ذرة في الكون إلا ولي المنبئ يهديني إلى صراط ربنا الصوي ولصراط المصطفى النبي صراط شيخي أحمد الولي سريا بسنا أنا ومن ينمى إلى يتينا يا ربنا ومن إلى يدينا وكل من أحبني أو أحسنا إلي يوما خفية أو علنا كذا شريف حبنا الكرزازي ذو العلم والصلاح والإعزاز بلغنا الله وإياهم إلى زر المنى في الخط مركز العلا ثم صلاة ربنا الفتاح على النبي الفاتح المفتاح وآله الغر وصحبه الرضا ثم على الخاتم أكبر رضا آمين يا ربي وحاشا أن ترك فدراعة لجودك تمت سيخ سيد أحمد التيجا رضي الله تعالى وارضاه عنا بآمين آمين سريا باسا لدينا سيخ سيد أحمد التيجا رضي الله تعالى عنه يأبى القضاء لجملة الأشياخ كن بورم طريق بي إلا تجاني أن يكون مناخي أختاره عن كل قطب لو على قدرا وأصحاب لديه أواخي شيخ سيدي أحمد التيجاني أنا طالب شيخي إن كنت لا يرضيك إلا هكذا sall neena in kunta laa yurdika illa hakada iyyaka an tulfa wa fika taraxi xurimat idaaw ulaahu yaa wa ila law wa hubibi gaayati mabtaxaawul waaxi man surra an yartaaha yowma xasaadi laa yabsuran yowman bi ardi sibaaxi Cheikh Seydi Ahmed Tidiane Serigne Abbas Sall nee na ku yaakaar Mawlana Cheikh Seydi Ahmed Tidiane Allahu taala bur yàlla fal na ko te booba aadama diggante ruula ak yaram lii wóor na ma Cheikh Seydi Ahmed Tidiane bur yàlla fal na ma te booba aadama diggante ruula ak yaram lii wóor na ma laa naat bi nusurati mawlaana bi sawlati yeeqowa yaqanahum fa adaw bi lu jooba waaw waaw kanzil aqiqa soppe yónneen def leen ni laa naa bi nusrati mawlaana bi sawlati sut soofaaka nusil aqiqa soppe yónneen def la ni ayaatu woo xabla woo ayaatu woo ma woo ayaatu woo baada woo ayaatu ayaatu نبيك المصطفى مصطفى كنز الحقيقات يا xanaa xanaa xanaa bég nga. lool lool alaaj Pape. macha allah te eh, dañuy doog eh, eh, door rek jërëjëf Cheikh Abbas. Mhm. di nuyu nag Cheikh Ahmed Fall Dieye yaaram ñu ngi lay nuyu di la ziar gërëm la ci nangul bi nga ñu nangul teew tey ci quartier général bi. ñu euh, fas ne waxtaanee góor yàlla boobu la nga xamee ni Mamadou Ndiaye ngi may def signe léegi ne am na gëstu bu ñu def euh, moom la xale yi tuddee portrait ci euh, télé yi. Mm. ak ay mbir yu am solo yoo xam ne ni balaa ñu koy tegal téléspectateur yi ñu bàyyi la rek nga nuyoog suñu xarit ci nga xam ni sànq ba tey nag ñu ngi taaxeerlu sa waxtaan Cheikh Ahmed Fall Dieye. a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim. alhamdulilahi alwaxidi al ahad albaqi alfardi samad alladi lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuan ahad wasalaatu wasalaamu ala man zahaqat bi bicsatihi al ufuq wa daanati lahu riqaabu almuluk wa xadaat lahu asaalibu alkalaam wa faaxa min axlaaqi izzakiyati miski alxitaam sayidina muhammadin zil xisaali alcizaam wa ala alihi wa asxaabihi almasaabihi zalaam alxaaizina kulla siyaadati walfaxri walmaqaam wa jamici taabiina saalixina alkiraam wa man ittabacahum bi ixsaanin ila yawmi ddiin wa radiyallahu taala an alqutbi alakbar zi siiki shaamiqi alashhar alkibritu alaxmar albarzaqu albarazix almuxassasu bilxatmiyati walkatmiya مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التيجاني شريف الفاتم الحسني رضي الله تعالى عنه وأرضى وعنا به آمين وعن وارث وحافظ سره شيخنا وجدنا العارف بالله مولاي الحاج ابن عباس صل التيجاني رضي الله تعالى عنه وأرضى وعنا به آمين مبكي جلتي mbokki àdduna bi ma doon ñaan rek une minute de silence bu dee mën na nekk alaaji Pape Cheikh. amul pour mbas mi dal nu te lii waxuma rek waa Futurs Médias def ko ci aalamal islaam yi mhm. le monde islam wala même ñi dul jullit toog di seetaan tey quartier général may ñaan même beneen diine ku ca ne ci une minute de silence bi nga ñëw fa nga koy seetaane nga toog ñaan ca la nga man pour yàlla dimbali ñu mbas mi yàlla jële ko fi balaa koor gee jeex mu jeex tàkk ci àdduna bi may ñaan kenn ku ne jàng benn faatiha jaamoo ko yàlla teg ci ñetti salaatu ala bi ku man salaatul faatihi moo gën ak juróom-ñeenti yàlla tiif neuf fois ci yàlla tiif ñu ñaan yàlla Covid 19 bii nga xam ni tiital na nit ñi waaye tiital na nit ñi am gis-gis muy basira mu tombeek ci saata muy lu garaaw di chiffre 19 ñu ñaan yàlla yàlla na ko yàlla jële ci àdduna bi loolu daal lay ñaan bala maa dugg ci nuyoo ñun ñépp fuwaay toog ci àdduna bi rek malay sàkku ci lii nga jàppit ni bu fekkee mas nga defal yàlla lu rafet nga ni yàlla jëf ji ma la defaloon bu dee am nga lenn loo ci gërëm na nga xool ci jëf jooju ba génnee fi feebar bi bàkkaar yi ma la tooñ te jàpp naa ni lii kenn waralu ko man Amath Fall Dieye mi toog tey di wax ci quartier général bàkkaar bi ma doon def di ko nëbb yàlla di ko nëbb nit ñi te yàlla mënu koo mënul échappé ci yàlla ma ni koon yow yàlla sama bàkkaar yi nga xam ne xam nga ko te def naa ko doon ko nëbb nit ñi nga rus ma ci loolu dimbali ma jële fi feebar bi kenn ku ne bu ko adressé kenn kenn ku ne adressé ko sa bopp waaye jëf ju baax joo ma sa def nga jaamoo ko yàlla te yàlla rek kese nga ni yàlla bu dee loolu am na loo ci nangu ci barke loolu yàlla nañ fi jële lii bismillah ayca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 allahuma salli ala sayidina muhammad alfatixi lima uxliq walxaatimi lima sabaqa nasir alxaqi bilxaq walhaadi ila siraatika almustaqim wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim yaa latif yaa latif yaa latif yaa latif yaa latif yaa latif yaa latif yaa latif imaam rabbi yassir wala tuassir amiin yaa muyassir kulla asirin innaka ala kulli shay'in qadir amiin allahuma ya qaadiya alxaajaati iqdi xawaaijana wa ya shaafiya al amraadi ishi mardana bi mahdi fadlika wa juudika wa karamika yaa arxama arraximina yaa rabbal aalamiin bi xaq yaa rabbu hayyih lana min amrina rachada wajcal maunataka aluzma lana madada wala takilna ila tadbiri anfusina falabdu yajizu an tadbiri ma fasada anta alalimu waqad wajahtu yaa amali ila rajaika qalban saailan wa yada fala taruddanaha ya rabu xaaibatan fa baxru juutika yurwi kulla man warada wa lirajai sawaabu anta taalamuhu fa jacal sawaabuna dawaama sitr li abada bi xaqi allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatixi lima uxliq walxaatimi lima sabaqa nasir alxaq bilxaq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار عظيم آمين. سبحان ربك رب العزة عما آمين يا رب العالمين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين dama ne li Amadou Fall def. jërëjëf mu El Hadj Moussa Dieye bari na kilifa yoo xam ne tey ñu ngi toog ci seen der ci fii nga tàmbalee ku ci nekk def dog yii ñu war a waxtaanee El Hadj Abbas Sall mu baax moomule. Mm-hmm. ma Yoro Fall jur ko. mu taxoon ak Sidi Hadj Malick radiyallaahu taala anhu mm-hmm. mu nga xam ne tubaarkàlla moo doon sëriñu Mamadou Dia. Mm-hmm. mi nga xam ne nii. ci ñi njëkk jël responsabilité ci réew mi ànd ak Léopold ci la bokk dama ne jooju ñaan mën na fi jële Covid mën na fi jële Covid 19. jërëjëf wala ci lu wér. jërëjëf kon ñu ngi lay seedeel ne tey balaa ngaa tàmbali dara amul benn xol boo xam ne bii tey amul tey loo yëg. kon yàlla na yàlla def nga motte ko ñu tàmbali ci bisimilah rahmaani rahim mu àgg ci alhamdulilah bil alamin sa baay bi nag Mamadou Mansour mm. président de tous les communicateurs. kontaan mi nga xam ne Amadou Mbaye gan mi kontaan ndax man jayis laa mm-hmm. Mamadou Dia dafa bëggoon lool fonk ma. te ma xam lool diggante Mamadou Dia ak ki nga xam ne kii mooy El Hadj Abbas mi tey ñu wax. wallaahi wallaahi kon yal na yàlla barkeel la ji. amiin bàyyi Chérif Sall ak Cheikh Tidiane ko koy bàyyu euh, Ndiaye Sall. Euh, doonoon wóllëre président hmm. Mamadou Dia hmm. Maodo. Euh, defe naa nag Oustaz Pape Hann ci hmm. yëfi télé ak yëfi programme. mën nañu dugal ab portrait boo xamee ni. rédaction bu quartier général. Euh, euh, liggéey na ko. Mhm. muy lu tuuti loo xamee ni akuk cof la. Mhm. te lu rëy la nag ci euh, programme mu télé laataa ñuy xuus ci waxtaan wi ñu ko jagleel tey moom Serigne Abbas Sall. bismillah. 1909 la gane si àddina dëddu 1990 Abdoulaye Ibn Abbas ñu gën ko xam ci Serigne Abbas moom mile doomu boroom xam-xam bu màgg la woon bu doon wuyoo ci turu Mayoro Sall. ñoom sax bokk ci famille wutu tukkuleur bu mag mi ngi ganee àddina ca ngink fu sorewul dara sàkkal ca Louga ginnaaw bi mu jàngee alxuraan moom mile gëstu bu baax ci lépp lu jëm ci science islamique ca gox boobule moom mile li nga xamante ni moom moo di agriculture soxaloon ko lool waaye nag taxul benn yoon mu bàyyi xam-xam ginnaaw loolu nag tax ba lépp loo xamante ni eh, diine bëggoon na ko rekk mu ci doon dox rawatina di gën a sàkku ci ay taalibeem ñu gën a farlu eh, ci lépp lu diine bëgg eh, te bàyyi ay tere waxtu juróom yi fexe woon na rek bay taalibeem du leen raw benn yoon lépp lu jëm nag ci alxuraan ak sunna du des ginnaaw moom fexe itamit ba képp ku jaar ci keppaaram alxuraan naam day am loo ciy jàng di ko def ci benn bés. Sikar itamit desul woon ginnaaw waaye nag lépp lu jëm ci wàllu politique ñu tege ko fële bëgg Cheikh Ahmed Tidiane loolu moom lu ko soxaloon la woon waaye itamit fexe na rekk ba ay ndawam lépp lu ñuy am mu doon lu leew. moom amul benn mu benn tarixa boo xamante ni amul ak yow jàmm ju sori lool ku ci mel ni maam Abdou Aziz Sy Dabakh Thierno Mountaga Tall Amadou Deme ak yeneeni i sëriñ yu bokk ci yeneen tarixa ku ci mel ni sëriñ Sohaibou Mbacké sëriñ Fallou Mbacké Djily mbay ak ñeneen moom mile bés bi muy dëddu di ñaari fan ci weeru juillet atum 1990 tombe ak Arafat moom sax euh, këram gi nga xamante ni moo nekk ca Louga ñu denc ko fa euh, doon na bërëb boo xamante ni li fay ñëw ci doomu aadama euh, takku na lool Serigne Abbas Sall lu jëm ci tabaxu juma moom lu ko soxaloon la loolu sax tax mu tabax ñaar ca Louga benn ca Saint-Louis ak yeneen ñaar ci ay gox yu sorewul dara Saalum fuñ naan Taaba ak Xayra waaye nag ay école yoo xamante ni dañ fay jàngale alxuraan ak sunna itamit soxal na ko lool bi mu ci njëkk a tabax ñu ngi ko inauguré octobre 1987 def ci ay koppar yu takkoo takku boobu sax daal di jàngal intellectuel yu bari moom Serigne Abbas Sall bind yu bari nag def na ko am na ci benn buñ doon woowee diwaan am lu ëpp téeméer ci ay poème lépp nag mu daldi ci cee tagg euh, Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa tey jii njaboot gi Serigne Abbas Sall bàyyi ginnaaw ji wéy rekk di gën a ñoŋal li seen wayjur bi tàmbali woon ay jàkka li ñu ci tabax boobaak léegi mat na ñaari téeméer ay bu jàngukaayu alxuraan naka noonu li ñuy dundal ci ay njaboot ëpp nañu ay junni junni lépp ci def te yàlla. tënk la ci portrait euh, réalisé par rédaction bu quartier général ñu ciy gërëm bu baax euh, Thioro mbaar Ndiaye euh, defe naa oustaz Pape Anne mën nañoo tàmbali waxtaan wi. Mhm. waa Sakkal suma mag may sa Maysa Samb bàyyu laari moom xam naa kontaan na ak képp koo xam ne rek fekk nga baax fi nga xam ne moo di Louga yaay na fi madame Ndiir ak kullu ku bokk ci njabootu Serigne Abba Sall. tey sa xol sedd na te tàmbalee gu ñu waxtaan bi oustaz Pape Anne. jërëjëf alaaj Pape am nañu mbégte macha allah gërëm bu baax a baax sëriñ Cheikh maar Abba Abbas moom itam ñaanal ko yal na ko yàlla gën a barkeel nuyu xalifa bi euh, sëriñ Mouhamadul Mansour sàll nuyu ko nuyu ay rakam yëpp njabootu sëriñ Abbas yëpp sëriñ euh, Serif Sall du koy nuyu euh, sëriñ Mouhamed Lamine Sall sëriñ Mouhamadul Moustapha Sall sëriñ Bisri Sall ak njaboot gépp rek damay bañ a lim di juum ak jigéen ñi ñoom itam soxna yu tedd yi ñoom ñëpp nu ngi leen ndokkeel nuyu njabootu sëñ Abbas yi ci biir réew mi nekk bitim réew ak soppay sëñ Abbas yëpp mbokk yi tey nu war a waxtaani nag góor góor yàlla boobu mm-hmm. yaakaar naa euh, fii euh, soxna euh, coro jaar léegi coro mbaar yaakaar naa loolu ñëpp dégg nañu ko waaye dégg nañ loolu waaye itam nga xool fi sëriñ Cheikh Maar Euh, jaar way fi xasida bu doy waar euh, li sëriñ Abbas wax loo xam ne xam naa euh, sëriñ Ahmed Fall jéey daañu ko gën a leeral sëriñ Ahmed am na nañu mbégte ñu ngi lay ñaanal yàlla gën a barkeel xam-xam bi yàlla gën la yokk ginnaaw bi ñu ñaanalee téléspectateurs yi safoo télévision Futurs Médias ngërëm bu baax a baax alaaj Pape Cheikh Diallo ak sax ngay tey di mu àndal tey jii nag nu war a waxtaane góor yàlla bi ginnaaw boo nuyoo ba noppi damay wax ni nit moom pour nga bëgg ko faaw nga xam ko ba noppi. Mhm. faaw nga xam ko ba noppi Seydina Mohamed mi gën ci lu yàlla bind. Mhm. Euh, yàlla sax leeram nga mosu koo jaarale ci maam bu ñàkk personnalité. Mhm. askan dafa am solo. tey jii bëgg nañoo xam kan mooy Serigne Abbas li ma bëgg nga njëkk nga njëkk ci ñëw ak nun euh, Serigne Ahmed Fall mooy euh, Serigne Abbas askan wi mu bokk. bala maa ñëw ci kan mooy Serigne Abbas nga wax nu askan wi nga xam ni. moom la sëñ Abbas bokk ndax yenn saa yi ngay tudd nit wala ngay dégg nit fekk sa mbokka mhm. yenn saa yi euh, am na ci koo xam ne booy lim say maam sax danga ko ci boole. Mhm. te doo ko xam. Mhm. bëgg naa daal tey jii nga wax nu euh, nasabu askanam moom sëñ Abbas Sall avant nuy ñëw. Euh, ci kanay sëñ Abbas Sall. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare di leen baal àq di wax alhamdulilahi rabbil alamin li waral alhamdulilah rabil alamin yaakaar naa Pape Cheikh yaak oustaz alxaaji Pape Makumba aan mi nga xam ni dama naan du ñu ñaari nit. moom Salih aan ay kenn lañu. bis bi ma koy xam ci gàmmu Mbay Fall ci cees mook oustaz Mara Yaquba Fall. ñoom laa xamandoo. am na waxit ju ma ko daan wax fu ma ko fekk ni ko yow loo am dana yokk ndax sa xol dafa baax. <laughs> moom mu ngi noonu rek. kon moom dañ koy ñaanal yàlla. yàlla na ko yàlla jàppale. allahumma amiin dolli ko sutura. ndax arab dafa ne kalam tu'raf ku wax feeñ. Mm-hmm. di nuyu nag ki tax ñu daje fi di njabootu Cheikhana Abbas Sall radiallahu taala anhu ki ci jiitu di docteur Cheikh Mouhamadul Mansour Sall. Mm-hmm. ayadahu llahu wa nasaru wa ataala baqa. yàlla na yàlla dëgëral ko te yàggal ko fi ak jamiu usratu abbasi ay rakkam yépp sëñ Cheikh ma tiijaan ma ci Louga topp ci moom sëñ Abdallah macha allah Chérif Abbas ba ci Cheikh Abdoul Fattah mi nga xam ni waa jàngoog lii bu amee moom la moom ci ay taxawaayam ci kër gi bokk na ci ak waa Futurs Médias bépp mm. waaye nag ñi ciy beral ngërëm tonton mag mi nga xam ni yàlla da ko nattu mu am cofeel gu rëy ci Cheikhana Abbas. Sall la sant fan yi waaw kon Pape Hann mii daaw maak moom waxtaanoon nañ ci. mu ni ma pourtant déwén loolu mën na nekk ñu waxtaan ko ci sëñ Abbas. wallaahi wallaahi may ñaanal yàlla Mariane Diop. Eh. aka bëggoon lii. aka moom daaw dafa ni woon insha allah déwén il faut quartier général daañu waxtaanee sëñ Abbas. buggu bugguma la dog waaw waaye dama bi ñuy préparer émission bi. Mhm. Euh, Pape jiitu na ma. lii dañu ko gis ci archive yi man Mamadou Ndiaye ak ñoom Coro ak tonton Mag euh, ma bëggoon comme yaa ngi waxtaane Marianne mhm. ñu ñu teg ko pour nga mhm. xam rek ni moom gëstoom yëpp li mu mhm. daan jàngale yëpp ba sénégalais yi fonk ko lool ci njàngalem Serigne Abbas Sall rek la ko daan teg moo am ndax ko li ma la koy dëggalal ziyaara ngi bi mu mujj muy 2018 def naa ak moom émission ci jaar-jaaru sëñ Abbas mm. ak ki ko doon filmeel ca mbaar ma nga xam ni ëtt boobu la sëñ Abbas gane àdduna tegal tegal ñu ko ñu déglu ci tuuti ndeysaan Mariane sama waa ji dem ci ku xam terrain bi loolu macha allah waaye euh, tànn Serigne Abbas boole ko ci ñu muy waxtaanee euh, soxna si salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. Euh, tur bi la. Mariane si Diop laa tudd. soxna Mariane ñu gis la ci télévision yu mag yi léeg-léeg nga génne thème tudde ko mag ñi mais bëri na looy dellu ci Serigne Abbas Sall loolu lan moo la ci inspiré. waaw maa ngi lay ziar bu baax euh, di am mbégte ci laaj bi nga ma laaj euh, ndax Serigne Abbas dafa nekk koo xamante ne radiyallahu taala anhu dama am cofeel ci moom ndax euh, enseignement bi nga xamante ne moom moom la fi indi njàngaleem mu nekk loo xamante ne diine la lay won yonent bi salaay rawatina nag Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu taala anhu loolu bokk ci loo xamante ne daf ma gën a marqué ci moom moo waral saa su ne ñu indi ay njàngaleem te nekkul loo xamante rek dañu koy def pour di ko def rek. dafa nekk loo xamante ne dañoo gëstu ci ay mbiram gis ni loo xamante ne la euh, dañ ko war a jàngale ndax euh, boo xoolee 90 ak léegi yàggul te bëri na ay xale yoo xamante ne soo leen laajtee peut-être du ñu xam Serigne Abass donc ñun ñi nga xamante ne am nañ chance xam tuuti ci ci njàngaleem bëriwul mais xam nañ ne loolu mën na jariñ ni ci mooy waral saa su ne ñuy bëgg di di indi ay mbiru Serigne Abass ndax euh, bokk nañu ak moom jamono. mu ngoog lii mënuñu ko woon ñàkk euh, brosser fàtte woon nañu ko sax waaye bi nga ko tuddee mhm. euh, fale ko ñu tegal ko téléspectateurs yi yéenam la woon mhm. ñu jagleel ab quartier général Serigne Abba Sall Serigne Ahmed kon euh, Pape Cheikh mhm. lii yéenam la woon wallaahi waaye yàlla rek a fi nekk nag oustaz Pape Hann mi daaw am na ñu ci wax matagul at ma ci waxtaan ak moom ci quartier général yi ni ko déwan nag maa ngi seet ni daal sëñ Abbas radiallahu taala mu ni ma mais loolu oustaz oustaz Ahmed Dieye loolu mën na nekk de kon tey lii li ñuy wax tawaarudul xawaatir yàlla na yàlla barkeel ni ñuy nuyoo nag sëñ Mansour la nuyoo xalifa yépp ci senegaal waaye ci aalamal islaami dama ni bu ñu tuddee rek sëñ Babacar Sy Mansour bu Tiwaawoon tudd sëñ Muntaxa Bachir Cerno Bachiru Taal Cheikh Ahmed Tidiane ca Cenaba ak ñaseen lew na Medina Baye ak sunu kër maam alxaaji rawaan ngom radiallahu taala an ca paal bay ñaan xalifa bii fa jóge bu yàggul alxaaji lamin ngom yàlla yokk ay leeram ak sunu baay alxaaji Maodo malik sàll mi nga xam ni tey moo doon xalifa maam ma yoro sàll kon nuyu nañu ñëpp waaye nag di dellu ba sàkkal di nuyu waa sàkkal gépp muy arrondissement bi ak commune bi ndax nag sëñ Abbas ci sous-préfecture sàkkal fa la amee extrait de naissance ak njabootam ndax sàkkal avant ñuy dem ay acte de trois di am ay commune communauté ruralu sàkkal 133 villages la te ngig ak sàkkal 4 kilomètres 500 la mm. te ngi googu la Cheikhana Abbas ganee àdduna di jël nuyoo bépp nag teg ko ci ki yàlla teg foofu madame Seck aw bokkum di sunu sous-préfet waaye di ko teg ci loxo monsieur le maire Cheikh Birahim Diagne waaye teg ko ci imaamu bu sàkkal di sama xalifa baay tey hmm. di sama sëriñ di sama professeur ni premier taalibeem alaaji Ousmane Dieng ñu bokk ndey baay tey muy sama xalifa baay nga xam ni góor gi far ba mbeng benn magu géwal Modou mbay gar mi dafa ni woon néeg boo xam ni ku génn yangas hmm. kon ko yor tama ji ngi ci biir man bu ma àdduna soxlaa ci waxtaan ma am mag ju mel noonu hmm. am ay kilifa ci biir kër sëñ Abbas muy ñëpp nga xam ni ku ne woo naa la waxtaan ak yow nga yàpp ma ñaanal ma ba ci ki nga xam ni yéeneem tey muy Ndiaye Abbas Sall tey am na ndam lu rëy ndax lii moo ñu jëkk yóbbu RTS ñu nag ñoom Habib Mbuub bu Ndar doom pa Amad Mbuub pour ñuy way ca RTS boobu ñun kenn du ci firi ngir lan rek mu liggéeyal baayam di nuyu njabootu sëñ Abbas yépp nag waaye di nuyu waa sàkkal nag bàyyiwuñu kenn mm. ak ñi ne ci diaspora bi ma Makumba ñi ngi leen di massaw mm. mënuñoo tudd benn continent képp kuy nekk ci diaspora bi doon liggéey covid 19 bi laal la ñi ci jot a génn àdduna ñañ ca denc yàlla na leen yàlla yërëm ñañ fa bàyyi te mënaguñoo ñëw yàlla na yàlla indi ay pexe ku moyen ba ñu mën a ñëw hmm. waaye ña fa nekkoon di liggéey te amatuñu liggéey yàlla na leen yàlla jàppale may leen xolu ak dëgër ba yàlla jële fi lii ñuy delluwaat di def lañ doon defal seen njaboot ndax nag ñoom ay jàmbaar lañu te ñu ñëpp ci ami njaboot kon ñi ci diaspora bi yàlla na leen yàlla jàppale yàlla dolli leen sutura ba li ngeen di wut doon ko wut tey nattu bi ñëw nañu xam ni nag ab jullit la yàlla di nattu kon nañu ko dégge noonu rek. barkallah Pape nag tey nga laaj ma. léegi nag ñu dugg ñu ñu dem direct nag euh, ci sëñ Abbas Sall. léegi li nga xam ni tey radiyallahu anhu mooy mooy euh, moo waral jotaay bi euh, askanam sëñ Abbas Sall. xam nga Pape Makumba dégg naa léegi ki doon def reportage bi ca corom ni sëñ Abbas bokk na ci wàllu tukulóor gi wax na dëgg. wax na dëgg xam nga bu ñu demee ba ca biir émission yeewu leen Pape Cheikh jàll dana ko fonk xaw ma nag ku ni ko tudde ko yeewu leen mais yow da ngaa jàppale sëñ Abbas ndax moom nee na yeewu leen te yeete. yuusu la borom jinne yi. xoola nelaw yi yàgg na. ca wala falam ba ñu dem ba Sénégal. génn góor gu ganee àdduna ci ngiig 1909. Hmm. moom sëñ Abbas. waaw 1909 la ganee àddina. ci ngiig. Hmm. way juram. Hmm. Cheikh Mayoro Sall. radiallahu taala anhu mais yaayam soxna Faatumata Wàdd mais Pape li waral sëñ Abbas ganee ngiig àdduna loolu la ñu war a laaj est-ce que sëñ Abbas dafa cosaanoo ngiig wala sëñ Abbas papam moo ñëw ngiig ndax dafa am fu papam jóge soogay ñëw ngiig man bay gar mi sëñ Abbas radiallahu taala anhu ci cosaan silsilaam dem na ba ci àddunaan ci fiir ba ndax da koo bind way ko puus nañu ay maamam ba ci Adnaan waaye dafa am dëkk boo xam ni ci njàmbur la ne gannaaw kebe ndëtt mhm. mooy lan ngejj la ak njagu rëy mhm. njafa maamu sëñ Abbas jóge mhm. ñëw ngiig man bay gar ku ne xam na ni laman déccee ful njoogu mooy maamu xaali Umar Faal sëriñ Pir Pir sañ a xóor waaye ku ne xam na ni Amari Ngoone Sabel mi libéré Kayoor ak Bawol ci 1565 ci la bokk waaye benn sëtu laman déccee ful njóogu bu ñuy wax ma yoro ndaak kebe ndaak kebe la yaay ji tudd mais ma yoro ndaak faal la sant kooku moo sanc ngiig ci 1796 ngiig nekk dëkku daara bi muy ñëw ngiig nag fekk na fa benn famille ñi sant ñang mais ñooñu booba du ñu woon ay sëriñu daara dañ doon bay seen ay tool sàmm seen jur mhm. bi sëñ sëriñ njiit ñëwee di laman déccee surtout laman déccee fu njóogu bi ma yoroon ndaak kebe moom moo samp daara ji waa ñangeen gi ni ko yow jëlal daara ji nga jàngale jëlal dëkk bi diine jaa ngi noonu ñu bokk lépp benn ñeenteelu sëtam nag bu ñuy wax sëriñ daara Mayoro mhm. ñu koy wax Mayoro ba kooku nag la mag ñi fekk si woon mm. Mayoro ba mu ñu ko wax sëñ daara ma yoro moo jàngal sëñ Mbàkke Busa mhm. sëñ Abdourahman Ndaam moo ko jàngal mhm. moo alaaji Amadou Wadd maamu sëñ Abbas moom la fekk si woon jóge ngi Gumba Sall mi jur Mayoro Sall bàyyi Cheikhna Abbas moom la fekk woon jóge njaa mu soogi Sall mi jur xaali yoro Sall mi jur ay Sall mi jur alaaji Moussa ji sunu baay moom la fekk si woon ngi xoola mag ñépp fekk si woon sëñ daara ma yoro mu nekk nag benn université nekk benn intellectuel boo xam ni lu nit di sàkku ci xam-xam boo ñëwee dana la ko jàngal sëñ Daara Mayoro moomu nag maam Gumba Sàll moo ñëw jàng si ci moom pap ba ba mu jàngee bay dem xam nga lu mu ko digal pap ma kumba hmm. ni ko gumba yaa ngi dellu nja mu ni ko waaw da ko gunge ba penku ngi ni ko soo demee moo du mbay gar mi hmm. mu ni ko boo demee boo amee doom bu góor nag ma ko tudde ñépp daañ ko dégg allahu akbar maam Gumba Sall dem dëkk bu ñuy wax Ndoj Sey Ndoj sëy moom it ci région de Louga ci département bi la jël fa soxna suñuy wax Faama Aysa Sey am ci doom bu góor tudde ko sëñ Daara Mayoro muy Mayoro Sall bàyyi Cheikhna Abbas sama maam Masoogi sàll dellu gànjool mu ni ko Masoogi yaa ngi dellu gànjool de soo demee soo amee doom nanga nga ma ko tudde ñépp daan sama maam boobu dem xateet faal ci kër Tafsir Omar Fall. jël fa soxna Lumbe Fall. Lumbe Fall jur xaali ma yoro sàll mu jur ay sàll mu jur alaaji Moussa Dieye sama baay. léegi nag maam ma yoro sàll moomu nag. mi nga xam ni moo dëkk ngiig nan la dëkk ngiig mooy baayam jànge na ngiig ci sëñ Daara ma yoro waaye maamu sëñ Abbas ci wàllu ndeyam jóge na ndar. di alaaji du Wade mi nga xam ne bokkuñu ci mag ñi njëkk a indi tariqa Seydi Cheikh Ahmed Tidiane ci tund njàmbur di mu xadd muqaddamu Ali Ndongo ca Fanaay léegi moom mit ñi jóge ndar ñëw fa ma Mayoro Sàll moomu nag li waral mu ñëw ngiig mooy bi mu demee ba xeemeem dugg ci tariqa Seydi Cheikh Ahmed Tidiane dafa dem ci génn góor gu ñuy wax Mayoro Ñang mm-hmm. Mayoro Ñang mi ngi dëkk Tanim mm-hmm. ma yara moo moomu jox ko tariqa Seydi Cheikh mhm. a Tidiane ma yara ñang ki ko jox tariqa bi mooy alaaji Amadou Wade mhm. alaaji Amadou Wade dëkk ngi ndax bi mag ñëpp jàngee bay ñibbi sëñ daara ma yoro dafa ni alaaji Amadou Wade yow bu ma sañoon wàllu yàlla gi ne ci yow da ngay dëkk ak man doo dellu ndar alaaji Ahmed Wade moo jur moo jur yaayu sëñ Abbas moo tax quartier bi mu dëkk ci ngi gét ndar lañ ko tudde ba léegi te mbokkam la cousin la te mbokkam la teg sëñ daara ma yoro moomu ñu tudde woon nag maam ma yoro bi maam ma yoro sàll nag xeemeemee bu dugg ci tariqa cheikh sëriñam boobu ñuy wax ma yoro ñang génn àdduna waaye sëriñu ma yoro ñang mi ngi dund di allah ji ma du wàdd mu ni man comme sama sëriñ ki ko joxoon tariqaa ngi dund ba léegi xaaral ma dem beesali yi kóllëre ji ci la dem nag ngi jaayanteeg alaaji Amadou Wade moom alaaji Amadou kaamil waliyu kaamil te nekkoon na ci waliyu yi nga xam ni yàlla mayoon na ko muy gis yoon yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo jur sëñ Dame Wade mooy jur sëñ Dame mi nga xam ne moo jur xalifa wàdd bàyyi alaaji Malick maître As Malick Wade ak Hadj Malick Wade maître Hadj Malick Wade waaw ñoo bokk ndey ak baay mais sëñ Amadou Wade moo jur yaay sëñ Abbas sëñ waaw alaaji Amadou Wade moo jur soxna Fatou Wade soxna Fatou Wade moomu nag moom ayatun min ayatullah moom kéemaan na ci kéemaanu yàlla yi gis nga sëñ Abbas radiallahu taala anhu yàlla nañu yàlla baal ci wax gi bu ko ma Mayoro Sall jurul woon muy sëriñ ci wàllu ndeyam hmm. waaye bu ko soxna fàddu wàddu jurul woon muy sëriñ ci wàllu baayam min jihati ummihi wa abihi dafa juddoo ci néegu leer maam ma yoroon nag ñëw jaayanteeg alaaji Madu wàddu daje fa ak Seydil Hadji Malick radiallahu taala anhu maam ma yoro di jàmbaar maam ma yoro sàll yàlla teel koo may muy gisanteeg yonent yàlla Muhammad ci lu dul nelaw yàq zatan laa mën a yàlla may ko xam-xamu miraas nga xam ni léeg-léeg bu daan dem ci dëkk day toog ni diw yow tey boo génnoon àdduna bis sàngam nga génn àdduna soxna si nekk fi njaboot gi nekk fi bu ñu la doon miraas kii lii lay am kii lii lay am kii lii lay am mu ñëwaat ci keneen ni ko yow it bu doon dangaa génn àdduna ñu miraas la kii lii lay am kii lii lay am waaye maam alaaji ma duwaat nag bi mu gisee jukko ji maam ma yoro sàll yor ci la jël nag maam alaaji Malick maam alaaji Malick da daan ñëw ngiig lu bare ndax Seydi alaaji Modou Wade matoon na ko wayjur mu sopp maam alaaji Modou Wade di fa jël njaboot gi mu amee ci njàmbur maam alaaji Modou moo ko jël teg ko ci loxo Seex Seydi alaaji Malick ni leen Malick faa mii day ndaw la waaye man alaaji Modou bu ma delluwaatoon di sëriñ danaa ànd moom ndax ku ànd ak mu àggale la ci yàlla hmm. loolu bi mu amee maam ma yoro sàll nag soxna Fatou Wade moomu di doomu Alaaji du Wade mhm. bi maam Alaaji Madu Wade nekkee ngi maam Mayoro Sall di fa ñëw mhm. ba ba ba ba yàlla li mu war a dogal mu dogal ko mais maam Alaaji Madu Wade dafa ni woon sama doom ji di soxna Fatou mhm. dama koy dencal sama jarbaat bu jàngi saalum muy lay siise yaayu lay siise ak Alaaji Madu Wade Xarjata Wade ñoo bokk ndey ak baay waaye bi maam yore bëggee sunuy nopp ñu jox ko soxna Fatou Wade pour mu ne soxnaam bu jëkk ba alaaji Madou dafa gàntu woon waaye mu gis yonent yàlla Muhammad mu ni ko may ko sa doom ji dina la ci amal doom joo xam ni àdduna daañu xam mooy kan. allahu akbar mu jël soxna Fatou jox ko Mame Sall kan mooy soxna Fatou mooy jigéen ju daan def vingt mille salaatul faatihi par jour. yaayu sëñ Abbas yaayu sëñ Abbas. la jëkk sëñ Abbas di gane àdduna waaye Pape lenn moo yéeme. Hmm. bi yàlla dogalee maam Alaaji Amadou Wade def loolu sëy bi am maam Fatou Wade am doom muy góor maam Alaaji maam Mayoro Sall tudde ko Seydi Hadji Malick mu génn àdduna kon maam Mayoro Sall taawam maam Alaaji Malick la ko tudde déglul Seydi génn àdduna mhm. mu amaat beneen doom mu tudde ko maam Alaaji Malick mu génn àdduna mhm. maam Mayoro Sall ni kër gi bu fi Malick daagul kenn du fi daagul kon tudd na Seydil Hadj Mal ñaar doom ñeenteelu doomam mooy bàyyi sëñ Maodo Sall ma yàlla yàlla yokku leeram ji jële naa ko ci lamiñu Cheikh Ahmed Tidiane gay sëtam boobu mu amaat doom mu tudde ko ko mu génn àdduna mu ni kër gi bu fi Malick daawul kenn du ko fi daawul kon danga naan bu fekkoon doomam yépp dañoo gaañu ba ci sëñ Abbas kon sëñ Abbas du tudd Abbas waaye booba yàlla am na lu mu préparé sëñ Abbas moo mën a nga may laaj askanam Mayoro Sàll moomu Gumba Sàll la baayam tudd mhm. Gumba Sàll Pape gàmmu Louga kër Alaaji Mujib daan nga ca ñëw. maa koy firi. ba léegi di ca waxtaan. maa ko firi gàmmu may nuyu ñoom sëñ Aline Diop ak Pape Diop ak famille bépp. sëñ Aline Diop nu koy nuyu. est-ce que xam nga ni maam Galaay mi jur baayu Alaaji Mujib. Mhm. moo Gumba Sàll mi jur baayu sëñ Abbas seen ñaari yaayee bokk ndey ak baay. Farma Saw ak Jale Saw la. macha Jale Saw moo jur Gumba Sall Gumba sàll Farma Saw jur Galaay Diop Galaay moo ànd ak Cheikh Umar ca jaar ja maam Cheikh Umar maam Galaay jur maam Haadi mu jur Alaaji mu jur mhm. maam Gumba Sall nag ki ko jur Galaay la tudd Galaay maa jaara maa jaara ki ko jur Maxtaar la tudd Maxtaar ma yuga ma yuga Maxtaar ma Maxtaar ko jur Mayasin Aliyun Lam Toora Samba Umaane Samba Umaane Moussa moo ko jur kan moo jur muusa birum birum poola ko jur maakam moo jur kooku daatu moo ko jur ibnu uqbata ibnu naafia maami sëñ abbas uqba ibnu abdul qays moo ko jur abdul laqit abdul qays laqita ko jur mhm. Amir moo jur Laqit. Mhm. Umayata moo jur Umayata moo jur Amir. Mhm. léegi bi loolu amee. Mhm. Darib moo jur Umaya xaaris moo ko jur. Fihir moo jur xaaris. Nadir Kinaanata Xuzaymata Mudrikata Ilias Mudar Nizar Muat Adnan. mais mais kon daal euh, sëñ Abbas boo toppee askanam. askanam da ngay dem ba ci Seydina Muhammad da ngay dem ba ci Seydina Muhammad. waaw kon Pape Cheikh. kii mooy. wàllu askanam. waaw njudd bi. mais Eli Bani Eli Bani mhm. maamam la ci fuuta. boo mhm. tax ñu naan sàll ma yoro lamtoor a gede. Mhm. Fatoumata Wade mi yaayam Alaaji Madu Wade jur ko noonu la nekk moom it ci néegu xam-xam kon tey boo may laaj sëñ Abbas fan la bokk. cosaanoo njàmbur dëkk bu ñuy wax njagu rëy waaye ganee àdduna ngiig la tax mu gane àdduna ngiig sëriñu baayam kakambayoon yoon wer di ngiig la dëkk di alaaji du Wàdd moom moo ñëw alaaju alaaji du Wàdd ba alaaji Amadou Wàdd gis ko muy jàmbaar lool am fit lool muy Mame Mayoro Sàll di boroom xam-xam am cër jël ko jox ko soxna Fatou Wade mi nga xam ni mooy jigéen ju man góor ndax mille salaatul faatiha la daan liggéey. mais mais am na lu la Alaaji Pape laaj léegi. Mhm. def naa déggoo ko mooy juddu gi. waaw mawliduhu si sëñ Abbas wax nga nu askan mais gane àddina waaw sëñ Abbas mooy juróom doomu yaayam. ndax gane àddina gën a xam am na kéemtaan bu ci am. waaw ndax sëñ Abbas kéemtaan dëgg doy na ci mu gane àdduna am ay mag papaam ni damay barkeelu. ci faqihul umma abdullahi ibnu abbas ish bi loolu la ko ñaawaloon mhm. papaam dama ciy barkeelu mais yaayam dafa bëggoon seydina muhammad yaayam moo ko daanu boowe muhammad abbas hmm. waaye kéemaan am na mhm. donte nag ci tele lañ ne sama baay nettali ma Seydi Xaaji Maalik ñëw na ngi am na sax ñu koy nettali naan maam Alaaji Malick teg na kaasu café maam sëñ Abbas nekk xale bu ndaw raam naan kaas bi waaye am na nag leneen loo xam ni moo gën a moo gën a moo gën a leerit def nañu genn ñaan di ko ñaanal keneen ku dul sëñ Abbas ci këll mu nekk xale bu ndaw raam ko jël kël bi yëkkati naan Seydi xaaj Malick ni bàyyi leen ko chance am la ci ay kéemtaan ay kéemtaanam waaye nag nekkoon na ci ay kéemtaanam moom bi mu ganee àdduna di jàng donte dinaa ci ñëw ca kanam loolu ku mu doyul dara dootu la doy ci ci ci ci sëñ Abbas waaye Pape jigéen juy def vingt mille salaatul fatixi par jour allahuma salli ala sayidina muhammadin il fatixi li ma uxliqa walxaatimi li ma sabaqa nasiri lxaq bilxaqi والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم benn ngoog nga koy def vingt mille fois par jour. Hmm. yaayu sëñ Abbas doon na ko def te sëñ Abbas booba ganeegul àdduna. bi mu demee ba màggat sax wàññi ko six mille la ci wàññi di def quatorze mille. <laughs> kon kooku ci kooku la sëñ Abbas jóge ci wàllu ndey. góor gii daan gis yonent bi ci lu dul nelaw di borom xam-xam di borom cër fa la sëñ Abbas cosaanoo ci wàllu baay waaye sëñ Abbas daal. ay mbiram ci wàllu juddoom noonu loolu aayatun min aayatullah mhm. nee na wax nañu sàkkal wax ngic waaw ak ci dëkk yooyu mhm. ma jàngee ci yéen ni mhm. eh, yàlla moom fu amul dara du fa def dara sax moom ci boppam waaw waaw mi ngi noonu eh, cosaan maanaam eh, li mu def ngic waaw ndax baayam sa sañtul ngiij moo ngoog ah? mhm. waaye tey boo boo boo déggee boo nee ngiij faal mhm. ah, euh, sa xel dem ci maama Yoro Sall mhm. mais boo nee ngiij faal jamono sa xel dem ci rek sëriñ Abbas xam nga Pape na ma ko na ma ko dundalee moom sëriñ Abbas xam nga hmm. ak relation digganteem ak euh, sëriñ yi nekkoon ci biir réew ak njàng mi ak njàng mi ah. waaw sëriñ Abbas Pape Cheikh bi may jëkk a ñëw TFM kii moom a dal <laughs> Eva Tra invité hmm. mu ñëw fekk ko mu def yeewu leen génn mi ngi sañ sa sol benn chemise su et blanc kaw ma ni ko man de invité Eva Tra man la imam Dieye mu ne mu ci yitte daal di may jël ni eh yóbbu leen imam Dieye salle d'attente boobu laa ko jàppoon. Mm-hmm. Cheikh Ahmed Tidiane sama doom 6 mois la am sooy def émission yeewu leen day jàkkaarloo yow rek di ree ba <laughs> ni kii te ngeen ko yóbbu ci Pape Cheikh Diallo. wallaay xoolal An. sëñ Abbas. la la uldu faafaa waxoon Seydi Hadji Malick walakinaha saara madinata malikin wa ma malikun ila karimul madaini Seydi Hadji Malick sancul Tiwaawan li mu dund ci àdduna hmm. dund ko Tiwaawan njaareem gii ñuy wax Cheikh Ahmad Bamba sanc ko hmm. waa Seydi Cheikh Ahmad Tidiane est-ce que bi muy ñëw Faas am na 63 ans hmm. góor yàlla yaa ngoogu Seydina Mouhamad à l'âge de ans la ko yàlla ni ko demal Médine 450 mhm. kilomètres sëñ Abbas sancul ngi baayam juddoowul ngi maamam juddoowul ngi maamam sancul ngi 1796 lañu sanc ngi waa waa faale na ko sanc ma yoroon daa kebe fekk fa benn famille ñangeen sëñ Abbas dem ba ku tudd ngi ni ngiigu sëñ Abbas mm. loolu mooy lan mooy dafa ñëw te li gën a yéeme bi mu defaree armée li nga xam ne si falam mag ñu baax ñu tëdd caabi ja sax da ko delloo waa faaleen man mi ànd naa ak sama papa ba taay bu ñuy ziar dem ci imam Pape Omar Samb mu jël caa caabi ji jox ñu moom nag yàlla dogal nag Pape Cheikh mu juddu papaam jël ko pour mu war a dem jàngi. waaw ci njàng mi ñi ñu ko njàngal. waaw ah, ak ñuy relation balaa jàngale yi waaw kay waaw. Ah. ki ko jëkk a jàngal mooy papaam. moo ko dalal jàng alquran sëñ Mayoro Sall sëñ Mayoro Sall bi mu ko jàngalee ba ci kanam tuuti jox ko benn taalibeem bu ñuy wax Alioune ja Alioune Dia boobu jàngal sëñ Abbas waaye sëñ Abbas la jëkk papaam di gaañu da ko woo ba mu ñëw ni ko Abbas lu mu yàgg-yàgg bul bind bul jéll bind bis bu ne xamal lu bees sëñ Abbas bi papaam génnee àdduna 1923 boobu mi ngi am 14 ans ndax 1909 la gane àdduna. 1909 mhm. 1909 la gane àdduna. 1923 la papaam génn àdduna sëñ Abbas am 14 ans te li gën a yéeme 14 ans yooyu wàccagul alquran. 14 ans 14 ans njëlbeenu njàngam xel mi jàpp mënul woon jàpp al alquran ji ba mu mën a liir wala man di këru. ñu jël ko jox ko sëñ Alioune Dieye bu Roy Dieye Cheikh Alioune moom moomu nag moo ko jàngal di ko jàngal njàng mi ñëw mais affaire bi metti waaye li gën a yéeme pap pap ma kumba jàmbaar amul ku yàlla dimbale am dëgg mbay est ce que xam nga saala saa ilum mhm. treizième aay yu basarunahum est ce que xam nga boo ko àggatee abbas la lay jox mhm. xam nga abbas ayin 70 la mhm. ba 2 alif 1 muy 73 mhm. sin 300 di 373 mhm. yu basarunahum boo ko calculé loolu lay jox sëriñ bi di ko saba ci yu basarunam sëñ Abbas ibbeeku way ci ab bay way ci xasida tey à de 14 ans fa la ubbeekoo fa la ibbeekoo lu mu ci xam ko te jëlee naa ci Lamine Cheikh Tidiane Gaye la jëkk sax muy agsi ci yu basarunahum moom yàlla tàggatoo na ko langu arab muy def ay way waaye bi mu agsee ci yu basarunam la ibbeeku ci lu jiitu njàngam ci ci bi te booba yu basarunahum àgg jàngagul lu mat ñeenti xisib ah. booba xaa dama suufu yaasin jàngagu ko mi ngi yem ci saala saa ilum ci yu jàngagul lu mat lu mat lu ay saar yoo xam ne si bare na lool waaye fala ko yàlla ibbee mu am fatxu muy roof fala fala fala fala woyee xasidaam bu garaaw boobu maalal fuaadu ila badiri du jannaati xawsil te kan la ko woy Seydi Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu taala anhu min ruuxihi istimdaadu dafa jël xarafu ne mu woy ci bayit daan ci ñëw ca kanam dirasa ko <laughs> waaw Seydi ba tey yamu ca bi mu jàngee mhm. ci njàngam moomu ci la dem dëkk bu ñuy wax ba gis nga gis nga bi mu bi mu ibbi ko ci yabasarunam dafa am dafa am fatxu de sëñ baas doo dégg kenn ni maa ko jàngal laxdar yi li yi bind lépp kenn du ko bind jële naa ci Cheikh mu ni kenn du ni maa ko jàngal ibnu Achir kenn du ni maa ko jàngal Ashmawi kenn du ni maa jàngal ibnu Rushdi daal bi muy jàngi xam-xam ca ngejji ci maam Umar Diop mi nga xam ni doomu maam Gallaay la di bàyyi ci moom maam Gallaay doomam jooju di maam Umar Diop la mu ko jàngal mooy risaala li nga lim léegi ay téere fiq la waaw ay fiq la ay fiq ak téere bi ñuy wax xalil dangay dégg Pape Cheikh ñu naan lawal ak saani ah ci wàllu fiq ci baabu ijaar bi mu dee ba baabu a jeex fa la jóge ñëw dëkk bu ñuy wax càmben sàmb càmben sàmb ak sàkkal euh, matul un kilomètre wala ca lay toll ci yoon waaw càmmee euh, ñoom Assane Maro kay sax ñoom sàkkal la ñu dëkk yaa ngi wax laari laari ñu doom la ndax may sa sunu mag la may sa sunu mag la ñoo bokk baay macha allah léegi nag càmbeen sàmb googu mu ñëw ci génn góor gu ñu wax Abdou Sey Samb tey jeggale fa xalilam waaye jàng fa saani yi ah, dem ndar la jëkk muy dem ndar nag dafa jàngi grammaire mhm. loolu nag Pape mën na keneen ku dul yow mhm. ndax euh, Pape Cheikh hmm. ñun xam nañu enseignement élémentaire nit man mën na cee jaar dem collège jóge fa dem lycée dem université mais mënunoo comprendre ku jóge primaire war a dem CM Modou Mbaye Garmi wala lycée. Hmm. ni nañ ma jàngal programme grammaire bu iniversité <laughs> parce que ñun parce que daara boo ñëwee ajurum ngay jàng. ajurum jàng mulxatul i'raab mulxatul i'raab kitaabu tasrif. laamitul afaal kooku yu mu xaddum kooku yu. jàng euh, alfi ibnu Malik. door a mën ngaa jàng ixmiraar nga jàng ko. léegi waaye moom dafa tëb rek jàng. dégg moom li gën a yéeme kay bi mu jógee bi sëñ Abbas radiyallahu bi mu jógee euh, ci ci ci ngiig gannaaw bi mu jógee càmbin ci góor gi Abdou Sey Samb yeggale fa lawal jàng fa saani muy xalil Cheikh Xalil nga xam ni ci Afrique occidentale ñu ñi tënku ci mazhab imam Malik jàpp nañu bokk na ci téere yi gën a mag waaye li gën a yéeme kay sëñ Abbas dégg naa ci benn wax maam Ale Sarr bu sàkkal ñu ni jàngal na ko ajurum mulhatul i'rab donte loolu gisuma kuñ ko bind donte am nañu ko wax ndax moom euh, Pam Malick Sarr nee na sëñ mhm. Abbas jaar na ci seen papa jàng fa mhm. moo góor gi mbay géey bu Dakar bango bokkoon nañu daara mhm. waaye li gën a yéeme bi mu demee ci góor gi sànjiri a jéey bu masar jóob ca sàkkal mhm. masar ga ca wetu sàkkal mhm. heure timis la fa àgg mhm. ni ko góor gi de dama ñëw pour jàng nax waaye lan laa bëgg ibnu malik laa bëgg a commencé waaye baabu baabu laalati li na fiil jin laay commencé amala in najal lillah fi nakira laala tii li naflil jinsi papa makumbaan amala in najal lillah li nag mufradatan jaat ka aw mukkar ijaal amala inna inna zaydan qaimun li inna anna layta lakin laal ka anna ak sumaali kaana min amal mhm. bu inna jeexee baabu inna laalati li na fi gis Pape Cheikh xoola mu ni ko li nga may jàngal daal man fi ma bëgg a commencé waxuma damay dem lycée doxuma damay dem enseignement secondaire man yóbbu ma faculté de lettres nga yóbbu ma ca gaaya ñu buuxante ca Ibnu Malik te premier année deuxième année moom du ma commencé man kay cycle bi ma jëm troisième année wuti sama maîtrise ñëwul sax ni université damay jàng première année deuxième année ndax ci alfiye ibnu malik première étape bi ci njëkk ndax charu ibnu aqil quatre tomes la deux tomes yi dañ ko def deux parties moom nag première partie bi dafa ni du ko commencé góor gi ni ko ah man daal est-ce que mas ngaa jàng nax mu ni ko déedéet masumaa jàng grammaire loolu moom dégg naa ko ci Cheikh Tidiane masumaa jàng grammaire mu ni ko kon yow yéemu naa de nan ngay mën a jànge grammaire ci téere bi xëy na dangaa xamul lan mooy grammaire comme dangaa ñëw ci heure bi léegi nañu bàyyi bu suba ñu waxtaan sëñ Abbas daa di dem fanaan ba suba mu ñëw bi mu ñëwee allahu akbar ni góor gi ñëw naa mu ni ko waaw waa léegi nag loo xalaat sëñ Abbas tàllal ko benn papier attey grammaire lu ci am ak nuñ koy lijjantee sëñ Abbas way ko mooy règle yi ñoom Pape An Diallo pendant des années xoola xoola Pape Cheikh ni naxaxa lil xamsati fil afaali tasniyatul asma yaataali ayayun lil jamci muzakkari sulami wayayun lil jamci mu anasi sulum dakakun yaa saaxi lima laa yansarif dafakun fil qawli kulli aalim urif xoola noonu la ko toppee noonu la ko toppee ba affaire bi jeex léegi sëriñ bi ni ko ah yow kon jàng si woo da ñëw pour seet seet seet nattu si ma. da nga bëgg a si daal parce que mu yaa ngi ñëw pour jàng si. mais indil ma façon xam yoo xam ni. te xoola Pape yow lan nga jàngoon. wajaal li naxwi yafalaani nuuna. Mhm. rafaan wa tadciina wa tasaluuna. wa xaswuha lil jazmi wa si ma ka lam takunu li tarumi ma hmm. sama sëriñ ba sëñ Adama Ba. lii nag ki ma ko jëkk a jàng sama sëriñ ba ca Sakal Alaaji Ousmane Dieye. Mhm. yàlla na yàlla dëgëral ko. jàmbaar la nag. naxaxa mooy dafa am verbe yoo xam ni Pape Cheikh bu ñëwee nga ni ma imaam Dieye tazhabuna yéen a ngi dem nuun googu il faut danga koy bàyyee ak nuun googu. mooy conjugaison. ma ngoog tazhabuna. Hmm. wa jaal li naxwi yafalaani nuunaa. Hmm. kon foofu ci présent bi nga koy koy bàyyee ak gi hmm. waaye dafa am ay xaraf yoo xam ne nag bu ko duggee dañuy dindi nuun nga. sëñ Abbas régleel ko boobu ni ko waj a naxaxa afaalul xamsa turfau bi sumuuti noonu wa tuxzafu wa tujzamu bil wa tuxzafu mu ni ko bil nasbi wal jazmi bu ñëwee ci luy nasab mhm. yooyu yëpp dañ koy éliminer bu doon li ñuy wax ci fi tubaab il était bon en naxu moo am il était bon en grand-mère ah, moo am en grand-mère moo am <laughs> léegi beneen bi xoola mu ni ko ah. ayayun teel a mën naxu xoola mu ni ko koon xoolal naxaxal bi mu ko waxee loolu ba pare mm-hmm. ni ko léegi comme comme comme comme comme demee na noonu mu ni ko fil afaali tasniyatul asma yaataal yi mu ni ko nag bu dee bu dee duel la duel ah. bil bil arif bil alifir fail musanna wakila ca alfi ibnu malik mm-hmm. sëñ Habib Ndiaye la ko jàngoon wala sëñ Cheikh Umar waaw wallaahi gor yu baax yooyu mm-hmm. bil alif irfa'il musanna wakila mm-hmm. ida bi mudmarin mudaafan wusila mm-hmm. kilta kaza kasnaani wasnataani këbnayni wëbnay wëbnatayni yëjru yaani wa taxluful yaa fii jamii al alif jarran wa nasban baada fati qad ulif ku ne xam na ni tasniyatul asma dañ koy rafaawe alif zeydaani zeydaani xoola bu dee wàllu jar maratu bi zaydayni raaytu zaydayni mhm. moom it mu ñëw ni ayayun sëñ Abbas sëñ Abbas parce que kon mhm. mhm. bu dee da nga ko ñëw indi ko ci lu ñuy rafaa defi ko alif waaye bu dee loo xam ne maska kasra moo fa war a jaar wala mas nasab mu ni defal ali yaa waaw diyel nga wax bu dee pluriel nag waaw ci laa jëm ah booba réglé na ko boobu réglé na ko paap mooy jamxu waaw jamxu boobu waaw jamxu mu zakkar saalim mm-hmm. jamxu mu annas saalim yooyu yëpp sëñ Abbas toj ko est-ce que xoola ni ko ayeyun mooy ca tasniyatul asmaa ba lil jamxi mu zakkari sulam wayeyun mu ni nag bu dee jamxu mu zakkar saalim li nga wax pluriel boobu mm-hmm. ku ne xam ne ni jamxu mu zakkar saalim dafa séddali ko deux étapes parce que man duel pluriel laa ci jàng man waaw <laughs> xam nga ñun arab <laughs> arab moom euh. tey fi tey ñun ci grammaire arabe ni ngeen di amee première personne du singulier en français ñun suñu deuxième personne du singulier féminin masculin am nañ ko. mooy anta oustaz. anta anti. waaye ah, pape li gën a yéeme pape li gën a yéeme pour nga am jamu muzakkar saalim. Ah. dafay xaaj ñaari étape pour mu mën a nekk jamu muzakkar saalim. Ah. mooy lan pape la nga jàngoon ca alfiye warfa bi waawin wa bi yajrir wa bi yajrur wan sibi mhm. saalima jamin aamirin wa musnibi mhm. xoola mhm. wa shibhihi zeyna wa bihi l ushruna wa baabuhu ulxiq wa ahluna ulu wa aalamuna illiyuna wa araduna shadda wa sinuna léegi asmaul xamsa nag yanqasimu ala qismayn dafay def deux étapes bi ci jëkk alaman muzakkar hmm. il faut mu nekk góor. alam ba pare prénom bi nekk non masculin. aaqilan ba pare nekk lu am xel waaye mucc ci taa u taaniis xaaliyan min taa u taaniis loolu bu amul ci jam'u muzakkar saalim mulhaqun bi jam'u muzakkar saalim waaye du jam'u muzakkar saalim beneen bi il faut wa an yakuna sifa wa an takuna sifatan mm-hmm. wala an yakuna min baabi af'ala allazi mu ànd su faala wala faalaan allazi man faalaan a faala faala ak faala faalaan kon yooyu nag sëñ Abbas ni ko jam'u muzakkar saalim boo fi déggee ñu naan muslimuuna mu ni jëlal de waaye araduuna shadda wa sinuna mulhaqun bi jam'i muzakkar saalim. te ba tey te ba tey dugguñu ci fiq wi. waaw xoola <laughs> déglu de. ñu ci grammaire ci léegi bi loolu amee nag ci gàttal. Eh. noonu la ko sëñ Abbas toppee ni ko bu dee maalaa yan sarif nii nga koy def. léegi góor gi yéemu. Hmm. sëñ Abbas jàng fa alfi ibnu. maalaa yan sarif fataa lay jaaree. waaw fataa lay jaaree. moo am. Mhm. xoolal wal masruufu xat laa yansarif. moo am wala iftiraarin aw tanaasubin surif. macha allah Seydou Malick wal ah. masruufu xat laa yansarif. <laughs> xoolal léegi li gën a yéeme. Uh-huh. mu daal di nag dem ndar. Uh-huh. ci génn góor goo xam ni sëñ Birahim Diop la tudd. Uh-huh. Ibrahima Diop ñu siiwee ko ci Ibrahim Diop muy muqaddamu Cheikh Seydi Hadji Malick. doon borom xam-xam bu mag. di nuyu Cheikh Cheikh Ahmed Tidiane sëtam yooyu waa Kër Pa Abdou Mujib Abdou Majib mhm. léegi ca loola la daldi dem ndar ci sëñ Birahim Diop fa la jànge nag Ibnu Buuna Pape Cheikh Ibnu Buuna 2000 poèmes day indi benn benn way bu Alfi Ibnu Malik indi benn way bu Ximiraar léegi bi loolu amee mhm. fa la ko jànge mhm. sëñ Abbas radiallahu taala anhu jàng Ximiraar sëñ Abbas. Mhm. bi mu jàngee ixmiraar ba pare. Mhm. fa la jànge tafsir. Mhm. sëñ Birahim Diop moo ko tafsiral Alqur'an. sëñ Abbas li ñuy wax xam-xamu logique. mi ngi ko jànge saint wi ak yeneeni fànnay xam-xam ndax Pape Cheikh nag mantiq muy logique. jàng ko mën na am waaye dégg ko jafe na. man de bis mu ne man leen dégg guma ko ak benn. sëriñu naar bu ñuy wax a cheikh chinqiti ahmad wul dusmi jàngal na sëñ abbas ay fànnay xam-xam mais sëñ abbas dañul di jàng fiq ci génn góor gu ñuy wax ahmed njaay njaag ahmed njaay njaag ndar la dëkkoon doon borom xam-xam bu mag sëñ abbas jàng na fa fiq lu bari bi mu paree mu jàng xam-xamu miraas ci moom mhm. waaye ki ko jàngal li ñuy wax rhétorique séddale ko ci trois étapes ilmul maani wal bayaan wal badia nga xam ni nit amul droit di firi alquran te jàngul naxu te jàngul li ñuy wax xam-xamu balaaxa balaaxa nag mooy rhétorique logique mooy mantiq mhm. te rhétorique dafa séddali ko trois étapes al ilmul maani wal bayaan wal badia kooku mi ngi ko jàng ci Thierno Saïdou Nourou taal moo ko jàngal sañu Abbas. Mhm. dugg directement. ci mhm. léegi sëñ Abbas. bi mu jàngee ci loolu ci Seydou Nourou Tall muy ilmul bayaan waaye li gën a yéem àdduna wa kaana fii kullu kuttaabin aw maxdarin yajlibu andaara muallimihi wa shuyuqihi bi bada bi badahati fikrihi xoola wa tawaqudi zihnihi sëñ Abbas radiallahu taala anhu bu yeboo kuy seetaan na nga concentré wu bu baax oustaz mais ni mu nekk classe. waaw ñu ngi ci njàngam rek parce que niveau bi dafa kawe ba nga xam wul rek du mhm. li na ci réew mi amul liñ ci nar a jëlee tey moo moo moo yéene yaa oustaz man xam naa ci dara. ñu ngi ci ñu ngi ci xam-xamu sëñ mhm. li mu nekk ci daara ji lépp. te fiqaguñu ba tey. déedéet xoolal daara ju mu dee Pape Cheikh. <laughs> Uh-huh. ñi muy nekkal dañuy yéemu ak ki koy jàngal. est-ce que mooy ci ñaw gi ñaw gi ak sëriñ yi muy nekkal ak sëñ Abbas xel mu ñëw mi ak ak fasaaxa bi nag. Mhm. fasaaxa macha allah. Mhm. yamu ca ak gis-gis bi ak ñaw gi di jaaxal doomu aadama yi ay promotion daara jooju. nekk na fa ak Cheikh El Hadj Abdou Aziz Moulay Abdou Aziz. borom 40 ans bokk na fa ak daara Serigne Mamour Ndiaye. Hmm. bokk naa ak daara El Hadj Tafsir Diouf. Hmm. bu Bargny. Hmm. bokk naa ak daara ay boroomi xam-xam yu bare Cheikh El Hadj Aziz. waaye gis nga. li gën a yéem ñi mu nekkaloon ñëpp nee nañu seedeel nañ ko ni dafa ormaaloon nit commencé ko ci ñi koy jàngal waaye di dimbali ay promotion ñi mu ay promotionnaire am alal birri wa taqwa mm-hmm. di leen dimbali ci mbaax ak ragal yàlla mm-hmm. ak tabam ci alalam ak xam-xamam ak dëkk ba mu dëkk wala quartier ba ak taqoo diineem nag. mooy li njabootam nekkee rek. ci àll bi moo am kon loolu. loolu ci la nekk. te gis nga moom jàngale na fukki at ak juróom. Hmm? enseigné na ci Saint-Louis. universitaire fukki at ak juróom. bi mu fa toogee ba ci àgg nag nii dinaa génn nag jéem a dem ci àll bi pour am fu may gën a góor góorloo sëñ Abass commerce sax def na ko. kon muallim la woon. waaw muallim kabiir. Ah, alim kullu fanin di jàngale lépp. 15 ans fukki at juróom jàngale na ko. waaye bi mu paree ci loolu nag la gën a takk gëm dem ci àll bi sos ay dëkk waaye nag di xañtu diine ji ak tariqa Seydi Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu taala anhu macha allah suyuxuhu macha allah mi noonu. tey Alaaji Pape <laughs> sëñ Abass xam nga xam nga fi mu jaar rek mooy. mooy nga xam ni euh, li ko yàlla defal ci wàllu xam-xam euh, ak ni ko yàlla ubbee xam nga ko dem ba am 14 ans ah. euh, mokkaluguloo alquran ah. mhm. ak fi la yàlla ubbee mm. ak fa nga mujjee dafa dafa dafa doy waar xam nga xam-xamu grand-mère am na ñoo xam si ay fii la ñuy tàmbale ci ay naxul waa di xak yooyu ñu jàng ci école yi mais boo demee ci daara yi fa ñuy tàmbale mooy fasaaxa bi ngeen di fasaaxa bi ngeen di faral di wax ci télé bi mi ngi noonu mm. waaw mi ngi noonu mm. nga xam ni sëñ Abbas tëb rek jàng euh, jàng ibnu Malik hmm. loolu boo koy wax ci ku jaar daara hmm. ah xam ci booy jàng grammaire fi nga war a tàmbalee ah, ah moom jaarul fi gaa yi jaar tëb nga xam ni euh, ah. yàlla ak i mayam mais yàlla ak ay gaayam yàlla da koo tëbal hmm. classe waaw koy wax jàngo waaw waaw wax jàngo <laughs> ñun noonu lañu ko tuddee ci jamono jóge primaire rek dem université dem xam ni kon kon euh, sëriñ Cheikh Yane si dafa xam ne wëliyu ah. war na yëg ak wilaayam la jëkk muy jub mm-hmm. la jëkk muy ñëw mais ni sëriñ bi nettalee boo xoolee sëriñ Abbas ni mu ñëwee ak euh, ci zahir ni mu ni mu màggee nga xam ni euh, nitu yàlla bu yëg ak wilaayam mhm. la la njëkk muy ñëw mhm. la njëkk nitu yàlla bu yëg ak wilaayam la njëkk muy ñëw mhm. euh, sëñ Abbas ginnaaw bi mu dajale fànnay xam-xam yi jàng branche xam-xam yëpp mu dajal ko yàlla nag dem yàlla kilifa yàlla koy def nit wala yu pire am ay mag ñu mu nekkaloon ci réew mi relation mag diggante sëriñ si ñëw ak avant nu ñëw ci sëriñ si Euh, kan moo ko jox tarixa mm-hmm. bi di tarixa bi di tarixa Cheikh Ahmada Tijani Serif mm-hmm. kan moo ko njëkk a li ijaazaal mm-hmm. sëñ Abbas ñaata ijaaza la am sëñ Abbas tukki yi mu def moom sëñ Abbas ah radiallahu anhu diggante boobu nag nga xam ne taalibe yi fàqikoo nañu di ñëw ci moom relation bi mu am ak kilifa diine ci réew mi doomu muqaddam bu mag bu dégg fiq bu jàmbaare lool di cheikh ma Sall rahimahullahu ku jeex takk alfaani fi mahabati cheikhihi alxaaji malik radiallahu taala anhu ah. doomu maam Mayoro Sall ji maam Mayoro Sall jeex takk ci Seydi alxaaji malik sëñ Abbas ci wàllu tariqaam jële naa ci sëñ Mansour mii di xalifaam nee na sëñ Abbas la jëkk maam Mayoro Sall di génn àdduna daan na toog ak ci papaam di werdu di ànd ak moom di wasifa te booba xale la te bàyyam bi muy génn àdduna ñu am 14 14 ans la am mhm. dégg naa ci nettali sax ñu ni papaam may na ko tariqa bi la jëkk muy génn àdduna mhm. waaye li ñu takk sëñ Abbas ki ko jëkk jox tariqa Seydi Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu taala mooy Serigne Babacar Sy bi mu amee 16 ans 1 <laughs> plus 6 7 mais si vous sept Diakhoune bëgg na quoi. torop kooku bu ma ko waxee fii day wàcc. <laughs> fii wàcc na ba fii dèjà wàcc na ba niveau niveau zéro set yi sax xam nga Pape Cheikh Diallo rek 1647 la. ba moo tax nga dalal. allahu akbar Cheikh Diallo mais mooy adat mais xam nga carte générale <laughs> dañu waxoon ni thème ñu def ko àllarba euh, le euh, kii thème ñu def ko waaw ñu toog ba ci yàgg ni lundi. waaw ñu toog ba ci yàgg ni. mardi waaye ñun bi ñu ñëwee eh. quartier général bu ñu ko bindee rek quartier général ah. def ko Razaïne eh. ah eh. cinq cent onze la ak la cinq tey bi muy cinq cent seize di Ibnu Abbas ñoo tolloo même adat xoola di ñeenti latif cent vingt neuf fois quatre di sayaara Thalès mënu ko Pythagore defu ko. xoola lii yàlla la Pape Hann te Pape Hann est-ce que bu nekkoon bis yooyu est-ce que danga ma dalal. Hmm. <laughs> Pape Hann dégg nga li ma la. Sayara. waaw 129 fois 4. 516. calcul mental. <laughs> yàlla bàyyi naa yëfi tubaab maa ngi ci diini ji rek. 516. waaw lu garaaw la. 129 mooy latif fois 4 516. quartier général pilis 5 516. nga dalal Cheikhana Abbas ci quartier général le 5 mai. mi ngi noonu léegi ñu nar a waxtaan. ci Cheikhana Abbas. te Ibnu Abbas boo ko calculé muy 516. léegi léegi ci calcul mi ngi noonu calcul baa ngoog mat na léegi sëñ Abbas bi mu amee 16 ans te El Hadj El Hadj xanaa waaru nga. 16 <laughs> ans mhm. fukki at ak juróom-benn. te mhm. lañ ko jox tarixatu tijaniya mhm. muy rëkk salaatal fatiha te la jikko loolu daan na ànd ak baayam ci wasifa ya daan na ànd ak baayam di di di laazim di wér dëgg yëpp. waaye ki ko njëkk a jox salaat ki ko jox tarixa bi. ci fukki at ak juróom-benn 16 ans. waaw mooy sëriñ Babacar Si. radiyallahu taala anhu ndax li may wax boo demee ci téere xayaatu wa amal bu Cheikh Ahmed Tidiane Gaye mm. moom dëkk ci bind mm-hmm. léegi boo xoolee foofu sëñ Abbas radiallahu taala anhu dafa nekkoon nit koo xam ni dafa bëgg mag ñi mais kan moo ko njëkk ijaazaal ok sëñ Abbas est-ce que xam nga àllaaj da ñaata at la am ijaaza mm. di joxe werd man ijaaza ñu jox ba yow nga am droit di joxe di joxe werd dafa dem ndar àllaaj vingt et ans waaw alaaji Mansour si Malick bal xaw mi hmm. bàyyi sëñ kër si Mansour xalif général des Tidiane yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér ak xulafaawu nawleem yépp sëñ Abbas gis mbooloo mu bari ñu ni alaaji Mansour a fi ne mu jéem a dugg dugg mënta dugg <laughs> xoola mu bindul benn xasida def ko ci alaaji Mansour yónnee ko dañ ko ko jox rek alaaji Mansour woolu ko ni ko yow yaa wax lii mu ni waaw daal di koy jox ijaaza 1900 32 ca Ndar boobu sëñ Abbas mi ngi am 21 ans. la ko alxaj am na ma jox ijaaza ci 21 ans 21 ko am nga droit joxe te booba sëñ Abbas dajal na fànn xam-xam yi. jàng na ba dajal jàng na ba dajal. léegi bi loolu amee moo tax mu ni fii i'taa il wirdi liman yatlubu minhu min ash-shaykh al-Mansour si rahimahullah li sababi dhalika qad jaada fi xariqatihi qasidatan ajiba amin faqdi ilf ulfin xola ca la ko waye xasida bu garaaw boobu xoola dem ba ca biir naan ko di ko wax naan ko wa huwa najlu cheikhi alhaaji malik alladi hadana ila sublil huda dil masaqibi mouhamadun il mansour zul jaa'i wal ula xawal xasla fi l maydani duna tajazuli sëñ abbas sall à l'âge de vingt ans la ko wax léegi bu loolu amee xasida ba yegg alaaji mansour xool ko woolu ko daal di koy ñëw sëñ Abbas ki mu jëkk a jox werd ci xas ci ijaaza boobu mhm. ndar la dëkk tudd Samba jàll Samba Diallo waqad aata al wirdul awal marratan fi taarix shaxsan ismuhu Samba Diallo fi madinati ndar sàmba jàlloo waaw Diallo waaw mbokk Pape Cheikh <laughs> amul sëñ Abbas ki mu jëkk a jox ijaaza ci dundam mi ngi tudd Mayoro Dia dëkk Ñomre ba tey soriwul Diallo gannaaw ba mu làqee nag ay itlaaq itlaaq boobu kañ la ko am le 11 novembre 1941 la ko sëñ Babacar Sy woo jox ko ijaaza bu am ñetti tampon borom bone carré bi ni ko nag li ma la jox nii la ma ko sama baay joxoon Cheikh Sidi Hadji Malick wa fi lmudakkara alladi kataba Cheikh Abbas si nafsi bi unwaani aljawaari xaaliye fi l asaani la ali tariqati tijaaniye xoola bi ko ko bi mu ko koy jox dafa ni ko jox naa la ijaaza ijaaza bi ma la jox man ngaa joxe ijaaza ay ijaazatun aadiya fi itail werdi mu ni ko ijaaza bi ma la jox man nga joxe werd waaye defal naa la ci beneen tampon boo xam ni man nga joxe ijaaza wa itlaaqul itlaaq li itail ma jox la beneen ijaaza boo xam ni ci benn këyit gi la ne man ngaa joxe itlaaq léegi nag suyuuxuhu fi tariqi ñi ko jox ay ijaaza ci tariqa Seydi Cheikh Ahmed Tidiane ki ci jëkk mooy El Hadj Mansour Sy Malick ki ci tegu mooy Cheikh El Hadj Abdou Aziz Sy ci tegu mooy Serigne Babacar Sy taala anhu mhm. Pape Cheikh maa ngi dem de. ah demal kay ma limal la kenn du la téye. Alxaaji Saïdou Nourou Tall jox na ijaaza sëñ Abbas. Cherif Seydi Bon Omar jox na ko ijaaza itlaaq Seydi Ahmed ibnu Mohamed ar mhm. di sët ci ci Ibrahima bi Tunisie mhm. jox na sëñ Abbas ijaaza mhm. Seydi Ahmed ibnu Mohamed Bil'id At-Tamasini kooku jox na sëñ Abbas ijaaza a Seydul Alawi Abdullahi wuldu Mohamed Fall an Seydil Arabi ibnu Saih nga nga xam ni xabroom lu waaye am aajo rawatina ku bëgg soxna wala ku amul borom kër wala ku bëgg am soxna booy dem Maroc jaar Rabat ci Sidi Arab ibnu Saalih boo ko fa ñaanee yàlla may la ko kooku am na Cheikh al Alawi al Alawi Abdullahi wuldu Mouhamad Fall ijaaza bi mu jox sëñ Abbas. Mhm. mi ngi jóge ci Mouhamadu euh, euh, ci ci euh, al mhm. ijaazaam mooy a Cheikh Abdullahi wuldu Mouhamad Fall jëlee ko ci Mouhamad Haafaz al Alawi radiyallahu taala anhu mhm. dixième ijaazaam mi ngi ko jëlee ci Seydi Idrissa al Iraqi kooku jële ko ci ibnu arab ibnu arabi ibnu saayih sëñ Abbas jële na ijaaza Idriss al Iraqi al Iraqi moom jiite na Zawir Seydina Cheikh 40 ans ma ngoog te ah. Idriss ah. ah. dafa am lu mu séq ak sëñ Abbas Sall yu yéeme mm-hmm. Seydi ba pare na ci beneen ijaaza ci Seydi ibnu Seydi Idriss al Iraqi mu jële si ibnul arabi muhammad al bashir at tijaani jox na ko ñaari yoon ijaaza ijaaza bi mi ngi ko jële ci ibnu arab asaayix beneen ijaaza bi ibnu sayd idris al iraqi mi ngi ko jële ci muhammad ibnul bashir at tijaani di sët ci seydi cheikh ahmad at tijaani sëñ Abbas am na ijaaza boo xam ne mi ngi ko jëlee ci Seydi Idrissa an Seydi Ahmad Sukayrij an Seydi Ali Tamasin radiallahu taala anhu Alioune Tamasin mi nga xam ni moo daan toog ca Tamasin jël benn cëggu réseem ni ko izab ila habibi cëgg bi dawloo 1000 kilomètres fekk cheikh fi muy toog jàng mu ni bëcc ci kanamam cheikh yëngal boobu ni sama dof baa ko defati <laughs> kooku ak sëñ Abbas am na ijaaza boo xam ni silsila bi foofu la jógee mu mu mu léegi nga gis ijaazaat yooyu yëpp sëñ Abbas radiallahu taala anhu moo tax ba ijaaz moo tax mu way ni ala kulli abdin kilmatul hamdi wa shukri li xaaliqil manaali fi sirri wal jahri jaam war na mu sant yàlla ci lépp lu mu war a am ci sant yàlla yàlla miy bind mi def ci lu nëpp ak lu feeñ mu ni doomu aadama war na sant yàlla ci loolu léegi nga xam ni sëñ Abbas radiallahu taala anhu li nga xam ni def na ko noonu ci ay ijaazaat bi ñu ko limee ci takk ma jële ko ci Lamine Cheikh Tidiane Gueye am na fukki ijaaza ak juróom-ñaar 17 ijaaza ndax moom chiffre set dafa nekk ci mbiram daañu ci ñëw ci kanam. Mm-hmm. léegi daal Pape foofu daal mooy ay ijaazaat yi nga xam ni mm-hmm. sëñ Abbas radiallahu taala anhu mm-hmm. am na ko léegi nag ak relation yi nga xam ni séq na ko. ak ñi nga xam ni si ñooy ñooy. sëriñ yi nga xam ni dañoo bokk ci tariqa Seydi Cheikh Ahmada Tidiane ak sëriñ si nga xam ni bokkuñu ci tariqa Seydi Cheikh Ahmada Tidiane ak ñi nga xam ni dañoo nekkoon ay nit yi homme politique comme ni ñu waxee Mamadou Dia ak li Mamadou Dia seede ci moom ak ancien ministre Ibrahima Sarr mi nga xam ni sëñ Bachirou Mbacke moo doon sëriñam waaye moom jële naa ci sama pap Mansour Mbaye mu moom da daan wax ni sëñ Bachirou Mbacke mooy sama sëriñ waaye sëñ Abbas yàlla ak yonant ba gi ma gis ci moom moo tax ma xaritoog moom. macha allah macha allah Sénégal Sénégal ñoo bëri valeur El Hadj loo bëgg a wax waaw. waaw El Hadj. Mansour wax ne léegi. lu mu wax. nekku naan Amadou Ndiaye Ndaak. Ah. nee na ko commerçant bu euh, transporteur bu mag la woon. Ah, ah. yàlla ma ne ko woon gan. Hmm? ci jamono jooju la oto yombul yàlla dénkoon na ko ñetti ñetti oto. Hmm. waaye daan na ko wax ne ko. am ñeneen ñu nekk ca gannaaw naan ko lan moo tax. tubaarkàlla ngay ngay topp sëñ dëgg-dëgg Seydou Boubacar mu ne waaw Seydou Boubacar dafa nekk nit koo xam ne kile kenn raw mm-hmm. loolu tax ma xaritoo am moom mm-hmm. waaye daal boo seetee ku mel ne maa Mansour borom tampon bi kooku rek day Seydi Hadji Malick radiyallahu taala anhu mm-hmm. Mm-hmm. kon dëgg-dëgg Alaaji Abbas loolu nga wax mm-hmm. indi Mamadou Mansour mu baax mi nee na Abdou Mbaye Gar ba dugal sama sang ki nga xam ne mooy sëriñ Mansour borom tampon bi nga xam moom nu ma mel moom la du ma nelaw damay toog déggu sama doom ji de daal indi na ko léegi jërëjëf Omar Mbaye Gar mi li gis nga Pape Mansour déggoo ma naa la sama maam jooju demoon ngi ci sëñ daara ma yoro muy mosoo gi sàll waaw moo wëllëre woon toon ak Massayer Mbaye mm. tëtëtët Massayer Mbaye jóge Kajoor nuy si sama maam Kër Baara Sall mm. Mm. bi mu nuy see sama maam boobu Seydi Hadji Malick ak maam Alaaji Rawaan ñi ngi ci sama maam di jàng mm-hmm. maam maam Massayer Mbaye keroog Ëmën Mbaye Maodo suñuy nopp bi muy gënee àdduna suñu biir kër maam Moussa gi Sall wallaay moo tax euh, Pa Mansour yàlla dogal na suñuy nopp papaam fi mu ganee àdduna man dëkk boobu la sama yaay ganee àdduna. macha allah <laughs> Adja Mbaye tey la anniversaire am. ah Adja Mbaye Ngom. ña nga la la bokkal. mi ngi noonu lu ko joyeux anniversaire. Mbaye Diop Degem Diagne la bokkal soxna Fatou Mbacké moom la anniversaire am. macha allah ñaareel la. wallaahi boo xoolee Serigne Abbas fi fi mu départ. ci grand-mère ko ni mu ko décortiqué. moom moom moom. Serigne euh, Fall euh, mm-hmm. day borom xam mm-hmm. euh, maanaam maanaam xam naa xaw ma bokk ci. waaw nga xool sëñ Abbas façon xam-xamam dafa jéggi dayoo mhm. ca ngay xamee ni rek euh, wilaaya gi moo moo moo jéggi dayoo waaw xam nga fi mu jóge ak fi mu tëb ah. waaw toog nag di jàngale mbooleem branche xam-xam yi ah. sëñ Abbas maîtriser ko ah. ñu ñëwaat ci kanam insha allah alaj Pape euh, dama la delloo kàddu gi mais daañu ñëwaat mhm. ci li mu taalif da ñu wax euh, ñaata téere la taalif mhm. am na yu ñu génne am na yoo xam ne sax mag ñi daan nañ taalif ay téere yoo xam ni hmm. wala daan bind yoo xam ne nit ñi sax duñ ko gis ci rhétorique hmm. hmm. yi mu xam nga xam ne Serigne Abbas yi nga xam ne ñoo newoon ci biir réew mi kilifa diine yi kilifa aada yi euh, nga xam ne Serigne Abbas dafa nekkoon nit yàlla bu comprendre àddina ah. waaw insha allahu taala Serigne Pape euh, xam naa ñu delloo la kàddu gi Abdou moom nit ku nit ku baax la Cheikh Abdou Fatah mhm. yii yëpp moo ko waral yàlla na taxawaayam yàgg ñu am yaakaar ci moom euh, Pape As Dia Euh, borom Dubaay euh, moom it bu euh, Bandour a ngi may wax ni kontaan na lool. Mhm. ak Ndiaye Abbas ak njabootu Cheikh Abbas Sall yëpp. ñu ngi mhm. leen di ziar Eva Dra ak Imam Diagne. ñoom fi ne dañoo couplé di seetaan. seen xol sedd lool. waaw <laughs> waaw mi ngi noonu uh-huh. Uh-huh. léegi Ndiaye Abbas mu Sall mu baax mi. Uh-huh. waa ji wax na ko léegi de. ci ñi feeñal liggéeyu maamam bi ci la bokk. baayam wallaahi. tey jigéen. baayam. Mm-hmm. loolu yàgg na de. ci gor yi nga xam ne nii lu ñu mës a am. dañ koo delloo seen njabootu wuy jur yi. Ah al Ndiaye Abbas bu baax moom ci la. wallaay Ndiaye Abbas doon ko dégg nag dëgg dëgg nag colonel Cissé bu baax mi. wallaay nga xam moom itam kenn mënu ci lu ci lu jag ci mi. te doo ko ci dugal. déedéet ma yoro bu jigéen moo jur Malick Cissé. Mm-hmm. Ah, ay kon kon moom sotti ceeg def ci la di. waaw ah, macha allah. voilà kon di ndokkeel nag waa Njiit faal macha allah ndax El Hadj Serigne Niang da nga tudd Niangé yi. waaw macha allah. te moom i tamit soo ko fekkee ci njiit faal mhm. bari na tal yu fa nekk te ñun kukk wërsëgam mhm. bari na armeel yoo xam ne yii moo leen miire mhm. wallaay bari na école yoo xam ne yii tamit tubarkàlla moo leen fa tabax te it nag diine rek moo ko ñu waaw ku muy muy muy alaaji muy alaaji alaaji sëriñ ñang mu antracom macha allah loolu man ne réew mi li ñu yor nañ ko def fi ñu nekkoon cosaan yi daal dëgg-dëgg bàyyi ko ginnaaw wóorul moom da dalu jërëjëf waaw waaw jërëjëf kontaan nañu. macha allah euh, Ousmane euh, Ousmane Sakkal Dieng. Euh, Ousmane Sakkal Dieng moom ñu koy ñu koy ñu koy ziar bu baax. Marie-Louise ak Mary Bey ñoom xam naa bu ñu duggee nag ci jàngale yi ci parce que ku daan jàngale xam-xam la ci wàllu économie ci wàllu entreprendre moom Serigne Abba Sall xam naa on a on a beaucoup de questions yoo xam ne ni dinañ leen ko baaxee mu jógee ci Mary Bey Diouf ak ki xamante ni moo di Marie-Louise Cissé Mamadou Ndiaye itam depuis sànq yaa internautes yi taalibe a ngi réagir ak euh, njaboot gi euh, on va les retrouver euh, dans quelques minutes waaye defe naa Oustaz mhm. mën nañu dellu nag ci cant gi ak Cheikh